AGT News. Chérif Ibrahima Seyni Thiaw Laye kilifa gu mag googu dali na yëkkati ay kàddu jëmale ko ci situation bi nga xam ni Sénégal ci la toll. moom kilifa diine bi le nekk ab référence ci ndaw ñu bëree bëri ndax nekk na koo xam ne modèle la dans la société waaye itam di jàngale lu ama am solo ci diine ak ci comportement. moom nag daal dinay addu ci li nga xam ni moom moo lëmbe dëkk bi fi ñu toll nii muy audio fuité yi ak le dossier Sweet Beauté mu am ay kàddu yu mu ci yëkkati mu ne nag kuy atte xeex waroo dugg ci xeex kàddu yu xóot di junj lu bëree bëri am dégg-dégg buñ ci am waral ñu ne nañ ci def ab jàngat ndax moom nee na def na lecture situation politique bu Sénégal d'abord lam ca njëkk a wax mooy kilifa diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ñu yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg seen ab der nañ ko bàyyi. kilifa diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ñu yëkkati ay saagaleelek di ko teg seen ab der nekkut loo xam ni du jaadu la te xamee ko woon suñu Sénégal gile kilifa diine yi nga xam ne lim na ci ñaar MC ñas ak ki nga xam ni moo di Serigne Moustapha Sy dañ leen respecté dañ leen jox seen cër mu ne ñas ak lu mënti xew doomu kilifa la waaye Serigne Moustapha si itam kilifa la ci réew mi te nekk na itam koo xam ne référence la yor ay ndaw ñu bëree bëri ñoo xam ne ci moom la ñuy roy tax ñu ànd ak jub ak jubal nekk ñoo xam ne foo leen gis rek ñoom murstarchidin yi da ngay am benn mbégte boo yëg sa xol ndax set gi ñu set sell gi ñu sell waaye itam saa ne ñuy yëkkati ay kaddu yoo xam ne jëriñ dong lañ ciy jëlee kooku ki ko liggéey du kenn ku dul Serigne Moustapha Sy donc moom nee na kenn warul taxaw ca biir assemblée nationale di yëkkati ay kaddu yu ñaaw a ñaaw di ko jëmale ci moom kenn warul yëkkati ay kaddu yoo xam ne yu ñagas la di ko jëmale ci képp kuy kilifa diina ci réew mi ngay imaam wala ngay jàngalekatub alquran ndax ñu bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom dañuy tàggat waa Sénégal ngir ñu mën a nekk ci yoon wu waaye itam xam ni moo di politique képp ku taxaw ne ab sëriñ warul wax ci wàllum politique yaa ngi juum yaa ngi def erreur ndax la politique ce n'est nul autre que l'art de gérer la cité cette cité là nag sëriñ si dañ cee bokk sëriñ si ña nga xam ne ñoom ñoo constitué cité bi ñoom ñëpp seen ay taalibe lañ moo tax il faut que ñuy waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci wàllum diine waaye itam ci lu jëm ci wàllum àdduna diine ak jamono la ñu wax diine gi nag ci nga leen di tënk yar leen ba nga xam ne jamono ji lañ koy mën a dundee ca mu wari jamono jooju nag politique ci la bokk te dañoo toll ci jamonoy politique goo xam ni fii ci Sénégal mbir mi salte na lool waaye nag il faut que ñu tàggataat il faut que ñu yaraat naka la ñuy tàggataatee moo ñu delluwaat aux sources source yooyu moom mii di Chérif Ibou Seyni Thiaw Laye daf cee daal di bokk am ci ñeneen ak ñeneen itam ñoo xam ne ñu ngi ci biir mu boole boolewaale ci Baye Mbaye MC Niass waaye itam Serigne Moustapha Sy ñoom ñëpp war nañ di addu ci li nga xam ni moo di actualité politique imaam sax buy xutba war naa mën a wax ci li nga xam ni moom moo lëmbe réew mi ndax kat li nga xam ne mooy audio yi fuité ni mu def Sénégal doy na waar ñëpp moom la ñuy waxtaanee waaye yow mi nga xam ne kilifa diine nga boo waxal ci loolu lan ngay wax war nga cee mën a wax ci naka daal di xool lan moo ci gën a jaadu nga daal di ciy xutba waxtaan ci ak sénégalais yi bu ko defee ñoom ñëpp ñu am njëriñ buñ ciy jëlee Sénégal nag léeg booy dugg si yenn sujets yi ñu ne sujet tabu la fii tabu amu fii lépp loo xam ne rek dafay jëmale kanam Sénégal war nañ ko di waxtaanee ndax Sénégal buñ ko waxee ce sont les Sénégalais dont on parle Sénégalais yi nag daf ci am ay jullit am ci ñoo xam ni dañoo nekk ay yooyu la jullit nag am na ci ñoo xam ne itam dañoo am ay sëriñ am ci ñoo xam ne ci ñoom lañ sukkandiku jébbalu ci ñoom lu ñu leen wax ñu def ko lu ñu leen wax ñu dégg ko waaye itam di jëfee ndigal di bàyyi tere kooku nag pour nga am emprise ci moom dafa yomb kon nag boo amee emprise ci moom benn kàddu ak benn discours boo xam ne boo koy jëmale ci moom saa su nekk dina nekk royuwaay nekk ku jub nekk koo xam ne mooy modèle bi nga xam ni société bi moom lay soxla politique bi moom lay soxla ngir mën a développer am réewam ndax sëriñ si am nañ ci rôle bu ama ama am solo boo xam ne moom la ñuy joué ci wàllum politique Sénégal. sëriñ lan moo di ab am moo di mu jël taalibe bi daal di koy tàggat tàggat goo xam ne nag li muy soxla ci moom moo di jikko gi jikko gi lay defar ba nga xam ne day nekk ku sell nekk koo xam ne ku ñuy sopp la nekk koo xam ne itam ku ñuy taamu ci jiit lay doon ndax moom qualité yi nga xam ne moom lay àndal moom mooy nekk li nga xam ne dañ koy soxla dans la société kooku boo ko amee est-ce que doo ko mën a jàpp ki nga xam ne moom moo lay tàggat ba nga xam ne yow da ngay nekk koo xam ne société bi da lay soxla ngir mën laa dénk liggéey yi nga xam ne mooy tax képp ku nekk ci biir société bi rek mën cee yëg sa bopp loole dañ koy dénk koo xam ne exemple lay doon tey nag dañ koy dénk koo xam ne sëriñ bi tàggat na ko ba mu am jikko ju rafet tàggat na ko ba du bëgg yi fi kenn tàggat na ko ba du sàcc tàggat na ko ba du wax lu dul dëgg tàggat na ko ba moom lépp lu mu am da koy doyloo te lépp itam loo xam ne dañ koo jox pour mu jox ko ay nit da koy jaarale fi mu war a jaar mu yegg dafa war a nekk koo xam ne dinañ ko tàggat ba lépp luy principe lépp luy valeur dafay daal di nekk ci moom loolee mooy li nga xam ne moom la Chérif Thiaw Laye nekk nii di wax te loolu moo tax mu ne kilifa diine yi nañ leen jox cër waaye itam nañ leen leen jox respect bi ci war ku xam sëriñ Moustapha Sy xam na ci loolu lay dox ku xool ay taalibeem xam na jikko yooyu ñu fi tudd léegi makaarimul axlaa yooyu mi ngi ci ñoom ku xam Baye Mbaye MC Niass xam fa mu jógee ko di kër Cheikh El Hadj Ibrahima Niass xam ne foofee képp koo fa gis rek sopp ko ndax jikko ja ndax taar ga ndax dal ga waaye itam nekk ñoo xam ne ay model lañuy doon demal fële ca Touba fekk fa ñoo xam ne itam tàggat nañ leen ci alxuraan ak yit ba nga xam ne dañuy nekk ay modèle demal ca Tiwaawan même chose nga fay fekk ay modèle yoo xam ne kenn liggéeyu ko lu dul sëriñ si nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jaar kon nag loolu dafa nekk loo xam ne c'est un impératif sëriñ si kenn mënu leen tere ñu addu ci li nga xam ni mooy politique bu réew mi ñi nga xam ne itam ñooy dund wàllum christianisme fii ci Sénégal ku leen xool xam ne ñoom itam ay référence lañ jikko yu rafet la ñu yor nekk nañ ñoo xam ne duñu dugg ci benn problème pour nga gis sax ci réew mi benn chrétien bu ñu la ne mi ngi woon fee di histoire ma ngay xuloo wala ma ngay xeex jafe na lool ndax dekk nañ ñoo xam ne itam tàggat nañ leen ba jikko yu bëree bëri itam dañ ko am nekk ay jikko yu sell yi nga xam ni moom la ñuy xaar ci nit pour mën a nekk ki nga xam ne day promouvoir le vivre ensemble dans la paix et la sécurité loolu yëpp boo ko gisee xam na suñu Sénégal gi am nañ potentialité bi nga xam ni moo war a tax ñun ñu mën a gérer suñu am réew ci ni mu wari moo tax nag Chérif Thiawlaay li mu yëkkati ay kàddu dafa nekk lu am solo kuy àtte xeex doo dugg ci xeex foofu nag ñun jàngat biñ ci am kese c'est personnel ñu gis-gisu bopp la mooy que ne état du Sénégal moo moom bi lépp wax ndax nag bu fekkente ne état du Sénégal moo yor justice te justice moom mooy àtte te bu fekkente ne ñi nekk ci biir état bi dugg nañ ci biir lépp xeex day mel ni kiy àtte xeex moo dugg ci biir xeex bi loolu kese lañ ci déggee kuy àtte xeex doo dugg ci xeex Mamour Diallo moo war a àtte xeex te pourtant moo dugg ci xeex bi ñu faree Benno Bokk Yaakaar nekk ak le président de la République Macky Sall ñoom ñëpp dañoo fare ci état bi Sénégal maanaam ñi war a àtte xeex te ñoom ñëpp ñi ngi contrer di xeex ndax kat ñi ngi attaqué Ousmane Sonko saa su nekk kon nag kuy àtte xeex mënoo dugg ci xeex Serigne bassiru Gueye moo nekkoon le procureur de la République moom mooy numéro un ci képp koo xam ni da ngay xeex ci réew mi mu dem àtte ji la moom mi waroon àtte xeex daa dugg ci xeex bi Ousmane Sonko indi na ko avec le rapport interne de la gendarmerie gendarmerie nationale kuy atte xeex doo dugg ci xeex moo tax mënuñoo comprendre ay député yu mel ni Farba Ngom ay député yu mel ni Koramaki ay député yu mel ni Abdou taxaw ci biir assemblée nationale ba naan Ousmane Sonko suite beauté Ousmane Sonko yaa def lii alors que yow yaa fa waroon taxawal population bi yaa war a atte xeex bi am entre l'état du Sénégal et la population nga dem taxaw di jàppale ki nga xam ne yow moom nga waroon contrôler di xeex ki nga xam ni moom nga waroon attel xeex kon nag kuy atte xeex doo dugg ci xeex lu ne mel nag moo xew ci nañ ci daal di jóg xool yan solution la ñuy daal di trouver ngir mën a génn ci lu ni mel modèle yi bari nañ fi lool Chérif Ibrahima Seyni ni Laye dañ koy sant di ko gërëm ndax kàddu yim mu yëkkati dafa nekk ay kaddu yu kilifa nekk ay kàddu yu mat te jotale ndax loole la soxla ci suñu am réew réewum jàmm lañ ne réewum salaam lañ ne kilifa yi fi jaar ñëpp daf nañ fi ab jàmm joo xam ne ku koy jéem a yàq boo moytuwul yow yaa nar ñàkk jàmm waaye itam relation entre les musulmans et l'église ñëpp gis nañ ni relation bu am solo la boo xam ne yooyu yëpp fay servir d'exemple di wane ni suñu Sénégal gi benn bopp la kenn mënu koo xar képp kuy àtte xeex nag bëgg dugg ci xeex bi dañu la fi jëlee ut koo xam ne il est impartial ut ñoo xam ne Sénégal leen soxal Sénégal leen yitteel ñoo xam ne seen parti taxu leen jukk waaye la patrie moo leen tax a jukk ne Sénégal Sénégal pour se servir, mais pour servir les Sénégalais. AGT News.